te lu mu rëy rëy dunu ko xaaj ngir am sa yërmande Serigne Saliou tàggoo ki ndey tàggoo ki baay du rakk du mbokk te du waay du jege ñaan la sox di ni jaay ngir bëgg am sa yërmande Serigne Saliou danoo fasoo féete fi yow di la liggéey yàlla kaaw ci yoon wu sell wi nga aw am la gën a gën def na la ngay sunu baay di sunu yaay di sunu maam di suñu lépp fépp waay nu koy la gën a gën suñu ñibbi itaas itaas suri taami baas yu la walew ma dem bokku ca gaay yi gën a gën billaayi barke say xunaa man tey ji saa xol bi mel ne maa nga ajjana ngirin ma booleeg Sëriñ Saaliw waa salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi delluwaat di leen nuyu te di leen siyaaraat di wax ni boobu ba léegi yéen a ngi ni topp ci seen sët bii nga xam ni sëtub sëriñ Bamba la bi nga xam ni lu dul liggéeyal sëriñ Bamba ñoru ko démb ba léegi bis bi ni muy doxee yéen a ngi koy topp ci ci site bi ñu leen koy wax tey nag ñii nga xam ne ñoo yegg si ñooy waa kër Mamor Jaara ñi nga xam ne ñoo yegg si ñooy waa kër sëriñ Bamba Serigne Saliou Mbacke lixlaas mu baax mi nga xam ne at mu jot da koy jagleel kenn ci waa kër Mamor Jaare borom saami daaw mu jagleel ko ab xalifaam ren mu topp ci tànk yooyu jagleel ko ki nga xam ni mooy sëriñ Mamor Boussa Khourédia borom saam di koo xam ni xool woon lenn lu dul yàlla ak yonent bi ak borom Tuuba ah ki nga xam ne nag mooy ab xalifaam di sëriñ bu soobe Mbàkke yabal fi ay rakkaam di sëriñ safaa Mbàkke mu baax mi toog ak sëriñ Baara mu baax mi toog ak sëriñ Mamor mu baax mi toog loolu mooy jataay bi di gan ñoo xam ne nag ñu yitteel sëñ bi lanu ñu am solo ci sëñ bi leen ndax dama ni benn lam rek du yëngu te dama ni ko woon léegi mbàkke man ngaa sant mbàkke ñu summi la daal ak mbaxana waaye jikko les di toppee seen toogaay bii ñu toog di ay kilifa yombul kon mbàkke fii nga teg sa tànk di liggéeyal Maam Mor Jaara di liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag di liggéeyal diine lislaam mbàkke nee naa la bu ko teggi mukk nee naa la nag cat du la gaaw jàpp ndax da ngay def ci cat yi dara lu waayar lekkal ko sa bopp lu la dal yaa ko teg sa bopp kon sëriñ bi ñu ngi leen di dalal te di leen nuyu te di leen sargal di wax ne nag tey ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw caaroy gi ngeen ñëw sëñ bi léegi wax na ko ci ay biir waxam bu njëkk boo musaana wax caaroy xel yëpp am ci lu mu dem waaye fu borom Touba dugg lu fa nekkoon ci lu bon ak lu safaan day tuxu fu borom Touba nekk lépp lu fa nekkoon ci mbiri caaxaat day tuxu yow nag ndokk ba nga borom Touba. kon Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Serigne Salim Mbacke borom lixlaas doo daan yu rëb doo dikk la yoroo kanam gi bañub géwél Mbacke bàllaay sa buri sëñ Mbacke maaram xaadim borom nit ñi maama sowaal mi ci naawe sa maam rek julli ci géej gi rek julli ci géej gi man ngaa sant Mbacke ñu summi la daal ak waaye ku njëkk gën ci koo gën bàllaay sa sëñ Mbacke maaram xaadim borom nit ñi jaan ju mag ak ju ndaw amul bu la màttee da luggi rek mbaa barsàq Mbacke kon ah mbokki taalibe yi ñi nga xam ne nag ñoo nekk sama wet di waa kër Serigne Bamba ñi nga xam ne nag ñoo nekk sama wet di gani Serigne Saliou Mbacke Lixlaas ndax day Serigne Saliou Mbacke Lixlaas Serigne saalim ñëpp la Serigne Saliou day Serigne Saliou àdduna la Serigne Saliou Serigne Saliou maam borom Touba la ba tax na soxna soxna Ndey Faatu Mbacke ànd ak teg délégation bu am solo bi nga xam ne moom la àndanteel ñëw siyaare ji sëñ bi di jox ko wàccu waayam waaye nag delloo ko njukkal ci bisam bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ Touba fii ci Thiaroye Gare nee na di jiital ci nuyoo bi Serigne Saliou Mbacke Likhlass mi toog nee na nuyoo bi mu ngi jóge ci seen kilifa ñoom ñëpp di Serigne Bousso Mbacke nee na seen toogaay moom moo leen fi yabal nee na moom ak sëriñ Baara Mbàkke mi ànd ak sëñ Maam nga xam ne ñooy ay rakkam nee na moo leen fi yabal ngir ñu ñëw siyaaranteeg moom ak sëriñ Saaliw ak jotal ko ak ak ci turu sëriñ bu Bousso mbakke mu Maam Jaara moom mi nga xam ni tey jii mooy xalifab sëriñ bu soobe moom mamoor Diarra nee na di rafetlu bu baax itam cër bi nga xam ni moom la Serigne Saliou Mbacke jël seddu ko sëriñ bu soobe moom Mamor Diarra loolu nee na loolu kat njabootu mamoor Diarra gépp la ko sëriñ Saliou sëdd nee na moo nga xam ni nag loolu lu foor la ci sëriñ Bousso ba mi nga xam ni moo leen fi yabal nee na di lu rëy li nga xam ni ci ñoom ay rakkam lan ngir seede si cant gi nga xam ni moom lañ koy indil ndax xam na ni li mu def nii dundal ak mbokk la ak luy rafetal ak mbokk sàkku tuyaaba moo tax mu def ko loolu nag képp ku ko def jëme ko ci yow amee loo ko ak fay nee na kat sëriñ bi nee na mënoo koo fay nee na ak cant rek lala la ameel nee na sëriñ Saliou Mbacke Likhlass mii lu baax lim ci jublu ba tax mu def lii nee na ñoo ngi ñaan nee na mu tase ceeg ngërëmul sëriñ Touba ak Mamor Diarra borom saam ak it ak bés bii nga xam ni dana ko yàgg taxawee lool Mbacke nee na ñoo ngi ñaan ko taxawee te ñu yàgg ko fa fekk ak mbooloo mi nga xam ni moom la àndal di taxaw bés bi kàddu yi moom sëriñ bi nee na kàddu yi jarul muy gudd kàddu yi cant rek la goo xam ni seen kilifa moo leen fi yabal ngir ñu tegal ko ci loxol sëriñ Saliou Mbacke nee na ñoom ñëpp it ñu ànd bëgg lool ci doxinu Serigne Saliou Mbacke ndax Mbacke mënoon ngaa doxee neneen waaye fi nga juddoo ak ni ñu la yaree ak li def ci yow nee na lii boo ko defee nee na du bett kenn de waaye nag dana seral xol yépp ndax léeg-léeg am ku juddoo ni nga juddoo Mbacke nu yaree ni ñu la yaree def ci moom li def ci moom. waaye mu dem ba àdduna fëkk ko mooy li ma doon wax léegi rek su la jamono fëkkee sa jikko man naa changé waaye bu la yàlla dimbalee ba lañ def ci yow jamono yóbbu ko bu boobaa nit ñi dinañ sawar a ñëw ci yow dinañ sawar a topp ci sa ginnaaw ngir nga teg leen ci siraatal mustaqim ah sëriñ bi nee na ñi nga xam ne ñoo moom. ñoo bokk ak moom Mame Mor a Borom Saam nee na ñoom ñépp seen xol sedd na ci yow nee na ñu ngi lay gën a ñaax nag nga gën a góorlu bu baax Mbàkke nee na lu mel ni boo ko xësee ba def ba nit ñi am ci yow yaakaar am nga aw sas woo xamante ni sañatoo doxee sa sago fooy dox ak looy wax ak looy def rek na nga fexe ba ba nit ñu gis ci yow lu ñuy xemmem ci lislaam ak ci sëriñ Touba nee na nag ñoom amee nañ la cant ak ngërëm ci turu sëriñ bu soobe ak mboolem képp koo xam ne soqi koo nga ci Mame jaar Diarra Borom Saam nee na kàddu yooyu dafa mënul woon a ñàkk ngir seen kilifa yónni leen ko nee na moo tax ñu ko doon seere tan xam ko ci yow it Mbàkke nee nag loolu bu mbooloo mi taxee faaw ñu seere ko jërë ngeen jëf Mbàkke